ñu a acte de la décentralisation mbaaw ci ma président ne Macky Sall waa xale bi dégg ne xeex ko ne ko kaay toog sama wet laa ilaha illallah dox laa ilaha illallah xam nga ak bu di ci kaw dóor ci suuf guy gi àll sembi bi ñu yóbbaale ko ana caatu foora fu mu toogee Mama Lamine maa ngi lay ana taxe xale yi lan xale yi nga xamante ne ñoo jàppale Siteu ana Abou Niasse ana Seck ana Guèye ah mafia bi ana maxal la jeune musicien xale bi nga xam ne daa am jom doomu Pikine bi gëm boppam maxal la jeune musicien kontaan naa yow combat bi le 28. Obama monsieur le maire. yaa ngi gis xale bi. monsieur le maire gis nga ni xale bi di def. le 28 de. xaw ma ko Siteu di gis nga costume la def nii waaye tàccu na Siteu waay. la ilaha illallah. eh tarkindaa bi. ana baxa. yéen maa ngi lay def. looy def sama bëgg li mu laam. waaw man laa gëm. waaw waaw. maa ngi déglu kër yi fi ñëw ñëpp. ak bi. dama a mën naa ko déplacé. suñu papa Pam Mayel. waaw yegg si na. mu ngi fii. ak suñu papa Abbas Ndoye. mu ngi fii. ndeysaan. monsieur le maire waaw lii yëpp moo ko waral. moo waral lii yëpp. wallaahi waaw. mais damaa génne baax bu bees. nu mu tudd. du ko leen ko wax. mais balaa ngaa def du ko leen. di ko waral muy ci di baax. du nit mais sama kot. kii Omo Faye. kii sama combat de la seetaan gëm ci mbëri. waaw. kii champion du monde la. cinq fois. sama jouru sama jouru dafa am combat moom mënoon na ne du ma ñëw mais xeebu ma mu jóge États-Unis ñëw fii mais soo xoolee MMA dafa bari ay ndaw yu bari yu koy def te gisuñu dara amuñu sax suñu ñibbee la ñu leeree xam naa ko dañuy daje am na fu muy liggéey day entraînement ji fi mu doon liggéey boo doon xeex sànq bokk na ñi ma gën a encouragé ma def ko te li tax ma def ko dama gis ne mbëri ko def soo xoolee kii muy taay la jàng muy taay luy muy beneen xeex la bu ñu roog bëre am ñoo xamante ne ay dijjatu lañ mën luy dijjatu boobu xeeti bëre am ñoo xamante ne box lañ mën seen loxo moo foor xam naa ñun làmb bu ñu te bëre ku ko fooy la nga nekk xale mënoo kon bëre li ma la jox mooy ku ci gis sa bopp rek nga dem defi gëm naa ne yàlla mën na la jàppale mais ma bëgg mooy sama kosu laa bëgg mu sànni message ak sama pro legacy. waaw balaa kosu di sànni message dafa am lu ñu bëgg. muy lan li ñu bëgg mooy suñu.